salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu bokk yëpp ñu fekk suñu bokki Daaru Muxti bokki Cheikh Mamadou Mortada ak Cheikh Mamadou Lamine Baara xanaa di tënk rek ci kàddu yu gàtt yu kàddu yu gàtt dañoo ñëw seet si sunu mbokk sunu xarit Cheikh Mamadou Basir bu Cheikh Abdoul Khadir muy sunu xarit dafa yàgg. ndax euh, bu ma juumatee lu ëpp ñaar fukki at ak juróom yoo xam ne màggalu Sëñ Abdu sama kër lay yendu kon kooku fonk na ma waaye may fonk naa ko ngir jikkoom fonk ko itam ngir waajuram fonk ko itam ngir baaxam ndax yan bu rëy bi mu yenu te sun borom yan ko ko rafetal na ko ndax kone xam na ni yoon yu bari nay bang-bang waaye man na ko muñ te ku mënta muñi bang-bang yi doo mënal doxal dara kon moo tax li ñu ko yan nag mi ngi koy doxal ci nam gën a rafete man lépp lu ma soxla ci wàll gi ñu ko dénk day jàpp ne na ko bëgg ne la koy defee te du ma ci sonn sax day laaj li ma bëgg waaye may wax sama bëgg kenn waaye ñu dellusi nag ci sëñ Abdou Khadir mi ngi waral lépp nga xam ni moom dafa rëyub cër ndax dafa niru Seydina Muhammad ci lépp nag ndax daf koo roy na moom laa gis ci njabootuk sëñ Tuubaa ku ni Seydina Muhammad ñëw na seet si la kooku nag dara jàll yu rëy rëy xam naa turam wu rëy woowu nga xam ne Abdul Xaadir da caa jël lu bare bare bare ndax daan faj ñu feebar ñi ci baatin ak ci saahir waaw ndax daan jëndee ordonnance di faj nit ñi waaye di leen ñaan itam ñuy wér di ko xam ni li ràmm ci kaw su kenn xamul nu mu toll. ndax dañ ni man sala xalfa maxfoorin xufre lahu ku julli ci ku ñu jéggal ñu jéggal la te koo xam ne ba nga gënee àdduna la sëñ bi wax ne Thierno Touré uddala saw yoon koo dajal ñu jéggal ko. kon sëñ Abdou benn affaire la koo xam ne bis bi mu gënee àdduna rek la am loolu. kon boroomu cere ngi noonu. bu rëy rëy jële na nekk gi nekk sëñ Tuubaa nekk wajuram waaye dafa nekk ndijaayam mboole ci kon moom léppam sëñ Tuubaa la day mel ni sëñ Tuubaa la xawlan wa fi'lan ci wax ci jëf yëpp sëñ Tuubaa la di ko sàmm di ko màndu di ko bari njaay ku mën a dimbalee te dimbalee ñëpp nag bi mu fi nekkee ba bi mu fi jógee ci jaamu yàlla lañ ko xam ak dimbale dimbale nit ñi diine ji itam li sëñ Abdou Lahad nekk xilaafa yëpp xilaafa yëpp moo ko moo ko moo ko yanoon ba natt bu ne dal na ko lu dal yonante bi ci natt rek daanaka xaw na koo dal ndax diine taxoon yoon ko yong waaye taxut mu dellu gannaaw ca lam nekkoon kon nag kooku su bisam ñëwee ku dib jullit ku dib taalibe ku bëgg lu baax war nga caa wax war nga caa jëf ci lu koy jaral war ngaa ñëw itam tëbb si sàkku si barke ci bis bi ndax lu ci waay sàkku rek sun borom mën na la koo defal kon nag ñi man ak njaboot sëñ Abdou Khadre yëpp laa ko seqal ñëppay samay xarit sëñ Cheikh ba ci suuf ñëppay samay xarit danaa ko wax fu ma toll lépp lu may yëngal lu ne ñoom ñoo ciy jiitu ñoo ciy man waaw kon ñoom dama leen amel boo xam ne mënu ma leen ko fay xanaa di ñaan ci barke sëñ Tuubaa rek ak barke sëñ Abdou Khadre lu jeune bëgg rek suñ Tuubaa def ko ci barke sëñ Abdou Khadir tappay gi yàlla fay sëñ Abdou Khadir julli yëpp xaj na ci murit yëpp xaj na ci kon nag ñu ngi yaakaar loolu di ñaan suñu borom ci baxam ci barke sëñ Abdou kuy wax asadu an laa ilaaha illallaah ci barke sëñ Abdou Khadir yàlla dimbali la ba nga mucc tey mucc àllak ñi nga xam nag dañu ko da leen a jaboote ci sayir ak ci baatin tam yàlla féet leen fu kawe seen jox ndax mooy faalul li maa yurit te dañ ko tuddee Abdul Khadir Khadir nag mooy mooy mooy kii mooy Khadir moo lépp kon nag daa mel ni turam boobu suñ am na lu mu ko jox la mu ko jox nag tam koy séddale rek yàlla na jot suñu wàll na ñëpp ci barke bis bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah